ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV ñu dalalaat leen ci xibaar tey nag suñu jàngatu tey dañ koy door rek euh, li nga xam ne moom moo di sorte bi nga xam ne kii di euh, kii di Idrissa Seck daal koy génn loolu nag euh, loo xam ne Sénégal yu bëree bëri am nañ ci jàngat itam kii di Idrissa Seck génn bi nga xam ne génn na ko jàngat bi nga xam ne moo ci am moom moo di. Euh, nekk na loo xam ne ay kàddu yu bëri bëri yoo xamante ne si ne yu wuute daal na ci am waaye itam ay manipulation yu bëri bëri yoo xam ne jàpp nañ ne da daal na ci am ndaxte kat kii di Idrissa Seck euh, moom kat ci diggam ak kii di président Macky Sall da wu ci addu yenn addu yi waaye itam euh, muy xamle ne kat lépp loo xam si dana ko mën def ba fexe kat ba candidature Ousmane Sonko ñu bañ cee laal dara dana ko def léegi nag loolu question biñ ci poose moom moo di Euh, liñ ci constaté moo di Idriss Seck lan moo waral mu daal di jug daal di souligner directement li di candidature bu Ousmane Sonko ba xam dañ koy valider am dañ koy invalider loolu euh, ban information la ci jot bay xamle ne kat dana ci euh, def li man waaye itam daal di ci daal di ci def ay intervention loolu nag nekk loo xam ne jaaxal nañu bëree bëri ndaxte kat jëlaguñ ci benn décision boo xam ne daal di nay tukkee ci juge yi loolu nag bu fekkente ne kii di Idriss Seck daal dina ci addu day xaw a am e, ñaaw njort boo xam ne dana ci am lool naka naka naka noonu it kii di Idriss Seck e, dafay wax ne kat kii di Ousmane Sonko dafa war a wattandiku e, bi nga xam ne mi ngi koy def ak bi ndaxte kat ak kenn du jàmbaarloog moom loolu loolu nag nekk na loo xam ne bu fekkee ne waa Pastef dégg nañ loolu buñ ko appliqué rek mën nañoo daanu ci seeni pièces loolu nag nekk loo xam ne. Euh, Idrissa Seck mën nañoo jàpp ne daf ko wax kat ngir kat daa di li nga xam si ne daana ko faral di def rek mooy euh, daa di fexekat ba euh, ba fexekat ba daa di manipuler leen ci Sénégalais yi waaye itam muy xam le kat lii di état bu Sénégal wala état bu mën a doon kenn du jaayanteeg moom li nga xam ne moom moo di rapport force loolu nag Idrissa Seck daal na koy wax lim ci jublu moo di kii di président Ousmane Sonko waaye itam moom Idrissa Seck daal àddu ci euh, li nga xamante ne si moom moo di euh, élection présidentielle yu 2019 yi ginnaaw ba nga xam ne ay njuuj njaaj am na ci ba kii di ba saali di daal di falu ci première tour loolu nag Idrissa Seck daal dinay xam ne ne moom kat waxoon na ne ay élection bu la euh, bureau de vote yi rawee buñ ko sàccee doo ci man dara loolu nag am na message bu foor a foor boo xam ne war nañu ko mën a jox ci élection présidentielle yu 2024 yi nga xam ne euh, mi ngi ñëw ci suñu kanam fexekat ba sécuriser li nga xam ne moo di bureau de vote yi ju nekk ndaxte kat euh, lépp loo xamante ne si ne wax nañ ko rek am na lu muy euh, signifié ci kanam ndaxte kat bu ñu loo ne ay élection bu xasee weesu bureau de vote yi rek ku ko mën a sàcc kenn mënatu ci dara loolu nag Idrissa Seck nekk kàddu yoo xam ne Sénégal yu bëree bëri war nañ ko wattandiku waaye itam xool lan moo waral Idriss Seck daal di yëkkati yooyu la kàddu te ku nekk xam na ne élection yi 2019 yi mook président Macky Sall ñoo waroon dem deuxième tour léegi nag bu nangoo bàyyi loolu mu jàll ba tey jii muy taxaw naan moom kat amul dara loo xamante ne si ne mën na ko ci réagir lu dul bàyyi noonu nag ndaxte élection bu la bureau de vote yi xasee raw mënatoo ci dara waaye itam ak kàddu yoo xam ne buñ ñëwoon fii di ko détaillé day xaw a bëri waaye itam euh, nekk na loo xam ne daal sénégale bu nekk war na ci bàyyi xel waaye itam bañ a bàyyi daanu ci presse yi nga xam ne euh, moom Idrissa Seck mi ngi koy joué loolu nag nekk loo xam ne du denc ci lenn ci homme politique yi nga xam ne euh, ñoom ñoo nekk ci libéraux yi ak socialistes yi nga xamante ne si ñoom seen i mébét moom moo di nekk fi di fi toog di ko doonlante ay 40 ans ak 50 ans loolu nag nekk na loo xam ne lu doy doy gu waar la waaye itam dañ koy jeexal jeexaleek discours yi nga xam ne ñii di waa APR ñu ngi koy def ci plateau yi di xam ne eh, kii di Ousmane Sonko bu demee buñ ko daanee kan mu ñàkk ay liberté mu ñàkk ay li nga xam si ne moo de ay droit am ci wàllu élection loolu nekk fi lu bees ndaxte ñoom kat ñoom objectif boobu lañ bëgg moo waral. ñu ngi koy jàll ci plateau yi pour bëgg kër bu décision boobu jugee du bett benn sénégalais bu ko defee kenn bañ a réagir lool nag euh, nekk na loo xam ne ay influence yu métti yi lañ ciy def jamono ji waaye itam di wax ne kat kii di Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ay politique lañ kon Mame Mbaye Niang am na droit def euh, recours ba fexe ba daanal kii di Ousmane Sonko loolu itam euh, seeni kàddu la ci jamono ji ci plateau yi loolu lépp nag nekk na loo xam ne sénégalais bu nekk war na cee bàyyi xel bañ a bàyyi kat forcing bi nga xam ne kii di président Sall bëgg na koo def bu xasee jàll amut kenn koo xamante ne si dina participer ci ay élection lu dul koo xam ne moom moo ko tànnal boppam